te jéeg fule ji nga ko jox ngir xam ne euh, jafe-jafe am na yow amee nañ la njukkal bu wér-wér ñu ngi ci sant di ci gërëm monsieur le maire nag li mu def euh, yéen sax dafa mel ni dafa ëpp dafa ëpp li nga xam ne moom la moom la moom la doté moom la dafa ëpp li nga xam ne moom la jox ndox mi. loolu daf koy wane ci anam yi nga xam ne moom lañuy ñuy exécuter projet yi daf koy wane ci gaawaay bi ci taxawaay bi ak ni ñu koy ni ñu koy piloté waaye dina xamal ni ñi ngi ñuy jabalal ni ko comme ni ko monsieur le préfet waxee ay ndaw lañ yu am solo yu xam ne am nañ beneen cër bu dul ay adjoint maire wala ay agent de la commune am nañ yeneen i cër yu ñu war a dox loolu nag damay yéene képp ku dëkk Touba rek am yëg-yëg boobu yëg-yëg boo xam ne da ngay xam ne li ñu lay def loo bu fekkente ne njariñ nga ci nga xam ne am nga ci beneen wàccuwaay boo xam ne sa njariñul bopp la ci saayir ak baatin sa njariñ bopp la ci baatin ndax pas-pas moo la fi indi bàyyi la fi ca sëriñ bi mooy liggéey waaye sa njariñul bopp la ndax li ñuy def bu sottee ñun ñëpp koy jariñ donc esprit euh, euh, participatif euh, xel xel mi nga xam nit ñi dañ ko war a am ci ne li ñuy def ñun ñëpp dañ ko war a ànd di ko defandoo li ñuy def it bopp ba noppee ñëpp dañoo war a ànd di ko sàmm loolu dafa am solo ndax li ñuy def defaluñ ko sëñ bi moom bëgg a faj njàqare nit ñi ak seeni moo tax mu dugg ci waaye ñun warutoon a egg ak foofu ak ñun waaye nag ginnaaw jafe-jafe bi egg na foofu ba mu duggal ci kàddoom léegi nag kenn ku ci ne war naa ko bàyyiwaat ci xel soo gisee ma jàpp ne chef du village yi ñëw teew si fii solo soosu la am ndax dañu am taxawaay bu rëy rëy wala bokk dañoo war a am taxawaay bu rëy ci askan ndax ñoom ñooy dund ak ñoom directement ñooy xëy di leen saytu suñu soxlaa ci ñoom la njëkk a yem waaye dafa mel ni ne bu yàqu-yàqu amee ñoo ko war a njëkk a yëg ñooñu it dañu war a xam yoon yi ñuy jaar ngir lu yàqu lu ne ñu mën a koo teel a yëg ña ko war a yëg yëg ko loola ñu mën caa teel a taxaw mu saafaraw loolu ay relais la ngeen di doon information boobu nag dama def ne faaw dox am euh, ñu mën a sensibiliser nit ñi maalam di leen yëgal. li ñu war a def xam ne li ñuy def ñoom dañ ko defal ñoo ko moom ñu mën a sàmmoonte ak li ñuy def ba buñ ko defee pare ñu mën ko bàyyi xel lu ci yàqu ñu teel lu ci sikk nit ñi teel ko yëg defe naa loolu farata la ña ñëw di liggéey si ñun xam ne ay ndaw lañ ñoo xam dañu ñëw di leen liggéeyal nit nag bu ñëwee di la dimbali di la liggéeyal da ko war a yaatal da ko war a xamal lu mu lu ne ci mbir may da nga ko ko war a xamal euh, defe naa loolu solo su am solo la waaye jataay bi comme ajjuma ji dafa xat ah dañ koy rafetlu rek jataayu cant la jataayu ngërëm la ndax ñuy dañuy liggéeyloo ci li ñuy liggéeyloo buñ ci lu luñ def luñ ci man dañ ko ci def sant nañ yàlla nag ndax yàlla boole na ay kilifa yu xam li sëñ bi bëgg ca bëggale ko ko yàlla boole na ay kilifa yu xam li ñu war a def ca nangu koo ànd ak ñun kon loolu euh, tawfeex yàlla la ñu ngi koy sante sunu borom bu baax ndax bu bu demeewutoon yi dañuy sonn waaye nag li ñu sëñ bi wax dañ ci jëm ba suñu loxo di di ci di ci dam kon euh, euh, waa tubaa ci kanam noonu lañu amee yëf yi cadre bi moom ni ñu ko xamee ni ngeen ko xamee acteur yëpp noonu lañ ko war a xame euh, lu ñu teg ci taabal ji la rek problème bu am ñu bokk ko toggoondoo ko